dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyandoo su dee am na lenn loo xam ne jamono ji jafe naa lijjanti loola mooy crise malienne bi maanaam jafe-jafe yi nga xam ne moo am ca diwaanu Mali gi tangaas gi dox diggante Ibrahima Boubacar Keïta ak askan wa nga xam ne ñoo nekk ca société civile ga ak opposition ba yéene kaay gi nee ne jafe-jafe yooyu nga xam ne moo am ca Mali loole moo tax wa CEDEAO daal di jël ay njiitu réewu Afrique daal leen fa yebala Macky Sall sax ci la bokk waaye nag ci xëlim ak Assane Samb ci yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na dox tànk jàmm yi nga xam ne waa CEDEAO ko dox samali mbir mi mën nañoo wax ne dafa lajj ndax dafa dëgër këcc demul cee nga dikkul mbay laar CEDEAO woon ak seen bal yu mujj maanaam daat nañu koy joxe ndax bëri na ay proposition yoo xam ne defal nañ ko askan wi yeewoo Mali waaye nag dañu ko mujjee gàntal ndax waa CEDEAO wax nañ leen ne leen lu toll ci fan ak benn ci ay député yi nga xam ne askan wi njort nañ ne nañu leen fale jaarul yoon maanaam dañuy démissionné waa CEDEAO wax nañu askanu Mali na leen dañuy tekk ab gouvernement d'union nationale waa CEDEAO wax nañu waa Mali na leen danañu def ab comité de suivi def ab tamit waaye nag lii lépp imam Dicko ak ñi mu àndal dañu ko daal di gàntal dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa ñu ne déet waaye mouvement du 5 juin ñoom tim lànk kandaare daal di nag gedd liggéey bi nga xam ne waa CEDEAO wóotaat nañu koy def mbir mi kay jamono ji ak laj ji te dëgg moo saama ndax askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Mali ñi nekk ci ku jege société civile gi maanaam ñoom nee ñu mbir mi lenn kese dong moo ko mën a lijjanti maanaam Ibrahima Boubacar Keïta tekki ndombal tànkam ndax réew mi da ko yàq yaxeet jamono ji nag mën nañoo wax ne askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Mali lenn kese lañuy sàkku maanaam démission Ibrahima Boubacar Keïta Abdoul mbay ci biir yéen a kaay gi nee na gëmul ne jafe-jafe yi nga xam ne am na Mali waa CEDEAO mën nañu ko lijjanti li nga xam ne moo ko doon lijjanti maanaam tànn ay kilifa ci déndu Afrique ñu daal di dem Mali waaye nag bu dee waa CEDEAO rek maanaam mbir mi dañu koy gën a la jël ba tey ci biir journal bi xëy di ñu xamal laan ñu waa CEDEAO ñoo ngi gën am ay jafe-jafe ci wàll wi journal bi di 24 heures ñu xëy fekk fa Yankhoba Seydi bokk ci parti réew mi la mu xamle nee na am na ay kàngam yu bokk ci parti réew mi di dox jamono ci tànki jàmm diggante Idrissa Seck Seck ak Macky Sall ngir ñu ànd liggéey yéen a kaay gi de la Tribune nee na gouvernement d'union nationale ci Sénégal ci yéen a kaay gi de la Témoin xëy di ñu xamal lan ñu jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci ëttu attaka yi lu jara wax la lu jara lijjanti la ndax ay weer a ngi nii maanaam syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllum yoon di kerew di giitangaas ak maître Malick Sall journal bi nag xëy am njaaxle nee na est-ce que Ismaïla Madior Fall mi nga xam ne moo yoroon ministère bi ñu dénk wàllum justice maanaam bàyyi wu fa lu leeru yàlla ne état bu Sénégal gi nee na nag ay juriste ak ay yoo xam ne ñoo ngi sàkku greffier yi nga xam ne ñooy grève ñu daal leen fay jëlee yéenekaay gi di réew mi quotidien ak le témoin source à sud quotidien mu ñu xamal lan ñu njiitu réew di président Macky ni ki démb ma ngi woon Singapour ci nag njabootu Babacar Touré doon leen jàll daan nay wax ne maison de la presse léegi Babacar Touré la ñu koy tuddee Macky Sall mbooleem loo xam ne xam na ko ci lu baax wax na ko Babacar Touré nee na xaritu ñëpp la xaritu mbooleem président yi nga xam ne ñoo nekk Afrique mi nga xam ne moo génn àdduna dimanche bi ñu génn ay atam tolloon si juróom benn fukki at ak juróom-ñeent mu sosoon groupe de presse bi di Sud Communication yéen kaay gi mu ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di Macky Sall delloo na ko njukkal Dakar Times mu xëy di ñu xamal lan ñu Macky Sall war naa wax ak ministre am waaye nag Macky Sall war naa wax ak yenn ci ay fonctionnaire ndax liggéeyu ñu bàyyiwuñu ñenn ñi duñu dem ci seen i ñenn ñi dañuy retard yéen kaay gi nee na bëri na ay ministre yoo xamante ni demutuñ seen i bureau waaye ay fonctionnaire yoo xam ne liggéeyuñu te loolee Macky Sall xanaa yëgu ko yéenekaay gi de Libération mu xëy di ñu xamal naan ñu ndar ràññe lii nag maanaam musuñu ko gis ay agresseur yoo xam ne jamono ji mën nañoo wax ne dañuy siif ndax ay agresseur ñoo demoon ci allée centenaire bi maanaam digg bëccëgu ndara kàmm ñu dugg ci benn boutique ab chinois kenn ki moo génn pistolet daal koy allumé ki nga xam ne moo nekkoon ci boutique bi ñenn ñi dugg maanaam génne coffre-fort bi jël fa lu toll si juróom ñeen fukk ak juróom benn ci ay millions daan na mes ne menteñ waaye nag jàpp nañu leen waa section de maanaam ñoo si def ay enquête am na juróom benn si ñooma ñoo ngi ci nee na ñooñee nga xamante ni ñooy bandi yi di sàmb surabal yi def ñaawteef googee am na ci ab policier boo xam ne dañu ko dàqoon ndax dafa sàccoona yéen kaay gi de la témoin mu ñu xamal laan ñu si Sénégal bu dee am na fenn foo xam ne maanaam moo ñàkku kaaraange ba maara day taali mooy Kër Massar foofee nga xam ne lu toll si juróom benn téeméeri junni ci ay nit ñoo fa yeewu te benn brigade gendarmerie rek moo fa am te brigade gendarmerie boobu juróom fukki gendarme ñoo fa nekk moo tax Kër Massar jamono ci wàllu ñàkku kaaraange ga mel na na fa tulleeg màlle yéen kaay gi du dalal ñu Mamadou Diop ñu gën koo xam ci Diop ISEC mi ñu doon wax ne dafa àgg ci xale jigéen bii di Abiba ba mu wan lor te ñu tëjoon ko ci kasu bi may nañu ko ab liberté provisoire journal bi nee na ab contrôle judiciaire ci la nekk journal bi di sunu lamb xëy di càmbaram mbiri Gris Bordeaux mu ñu xamal lan ñu toog lu toll ci fukki at benn victoire rek la ci am yéenekaay gi di Rewmi ñu xëy fekk fa Kalidou Koulibaly ko laajee na ko na bokk terrain ak Messi lu mu yàgg a la lu ko yàgg neex la te bu ñu demee ba match bi taxaw dinañu xam ne onze contre onze la